<clears throat> maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay bu dee yéen ak ñuy dégg rek mun ngeen uh, ñu def signe comme ça ñu xam ne yéen ñuy dégg I got I don't know what you were doing. What to do? No, no, I, got, I was sitting I was taking off the jacket. Voilà, donc euh, sama waa ji laa àndal. Sama sama liet sama liet naa liet wala colonel. Ah, ban la ci sa gars <coughs> yi sama liet naa bi laa àndal ñun ci happiness la ñuy dox euh, ñu ngi jëm nii nag Washington am naa ñu bari ci yéen dinañu ne waaw ñii moom fu ñuy xëy suba teel si waaw dañu am rendez-vous ak Sénat bi tey euh, ci li ngeen gisoon noonu camion yi ñu doon euh, wane noonu New York donc Washington la ñu jëm nii donc nuyu leen liet naa bi am na jële am na yeneen surprise nag ndax ñaari oto la donc am na <laughs> suñu beneen liet naa bi ngi ci ginnaaw boobu ci beneen yeneen oto donc euh, on a rendez-vous à la Sénat matin à Washington donc dañu xëyee New York man euh, six heures ah sept heures du matin <laughs> sept heures <laughs> sept heures du matin voilà donc euh, au rendez-vous comme ni ma leen ko waxee lii ci euh, bari yëpp nag incha allahu rabbi sénégalais yi la plupart nag da ngeen di am inquiétude ragal ndeysaan ne ndax li ñuy liggéey mi ngi dox ah lii yëpp def nañ ko te Macky Sall changé wul est-ce que ñii tamit li def mais je peux vous garantir et vous rassurer que euh, Sénégal man de man boo ma laajee euh, bokk na ci priorité réewu Amérique man loolu mën naa leen ko wax ndax the euh, sound can be better okay so let si see if I can get the sound a little better. Let me take off the, the ear. I, So let me take off the earpiece. Yàlla baal leen ma ma dindi euh, voilà est-ce que du ma fay léegi wax leen ma léegi I think it's better now right je pense que léegi non takat si it's gonna make a noise voilà now you good ok day said now we good voilà donc comme ni ñu leen ko doon waxee rek euh, ci li ngeen fi gisoon euh, bi makki Sall ñëwee au mois de septembre ba ñuy wonee euh, li nga xam ne moom la Macky Sall def Sénégal muy rey doomu aadama yi muy en emprisonné doomu sénégalais yi donc aujourd'hui on a l'honneur d'aller présenter ça au Sénat comme ni ngeen ko xamee toujours yàlla dafa def moom comme boo nekkee ci réewu yoon moom euh, lépp lu la metti rek da nga koy donc euh, je peux vous rassurer que vous aurez aujourd'hui la victoire la plus éclatante que vous vous attendez li ngeen doon xaar lu bari daanaka lu bari dina sorti tey incha allahu rabbi waaw donc euh, dinañu dem et on va vous représenter dignement et incha allahu rabbi xoolal yàlla li muy def rek ñun Macky Sall saa bu ñu benn gâteau rek bu jox ñu fukk ak ñaar ndax gis ngeen tey daanaka xawoon naa am tuuti jeexi jaaxa bu ma nee jeexi jaaxa xawoon nañu am tuuti euh, jafe-jafe parce que on se disait que ak ñaawteef yi Macky Sall def yëpp. mi ngi bàyyi ay nit donc euh, cela allait un peu nuire les informations mais xoolal li yàlla di def rek tey ñu xëy il nous donne encore un omelette sur le plat xam nga boo xoolee affaire ngañ dem ba euh, c'est que ñoom il n'ont pas compris Ngagne c'est quelqu'un qui allait être au Sénégal pour battre campagne parce que dafa am responsabilité boo xam ne moom lañ ko jox euh, ngañ ñi ko xam xam nañu ne du tapet c'est pas un poltron moom il l'a montré et il l'a montré à maintes te du euh, waxkatu ñaawteef ngañ du wax lu ñaaw du def lu ñaaw amul dara loo xam ne mën nañ ko koo toppee lu sérieux kanta li mu doon bañ mooy ay nervi armé de Macky Sall mënoon koo fekk këram jël bakkanam jël bakkanu njabootam wala gaañ ko wala def loo xam ne day jaggi dayoo loolu moo ko génnee woon Sénégal et maintenant encore une fois mi ngi ci loxo dig euh, te ñun ñëpp ñu xam nag ne autorité la Ngagne c'est pas un n'importe qui c'est quelqu'un boo xam ne <coughs> c'est un responsable un grand responsable dans Pastef donc moom la ñu jël waa DIC ñoo ko jàpp donc biñ koy jàpp mi ngi wér péng amul dara lu ko jot mi ngi xelam dara mettiwu ko amul benn problème de santé donc euh, continuer leen rek continuer leen e vous allez comprendre que on n'est pas intimidé par vous Macky Sall et sa bande ñoom comprendre ñu ba léegi ne intimidé wu ñu sénégalais mais dama leen di rassurer la jeunesse la GP la GPS xam leen ne ngañ tey la taxawaayam gën a dëgër ci Sénégal ça je peux vous ku xam ngañ dem ba man mënoon naa leen garantiral ne il était déjà prévu. mu ñëw battre campagne comme ni mu ko diglee ak yéen voilà donc fi mu ne nag mi ngi battre campagne parce que ce que Macky Sall n'a pas compris day seet parfois yow yaa ngi defee sax ne yaa ngi yàq te fekk da ngay defar donc je pense que Macky Sall il n'a pas compris ça moom comprendrewul ne. mënul casser confiance su sénégalais yi parce que les sénégalais ils sont très déterminés ay nit la ñuy yu déterminés te combat bi du combat boo xam ne Macky Sall dina ko gagner et il le sait Macky sait que ce combat est perdu d'avance perdre na ko d'avance ma bëgg a rassurer jeunes yi rek que ga ngañ lépp lu mu doon doxal tey lay gën a dox lépp lu mu doon def tey lay gën a baax allez vous abonner massivement sur les pages encore une fois Ngagne Demba Touré coordinateur GPS xam ngeen page yooyu ak Ngagne Demba Touré ci boppam dem leen abonné ci massivement te ñu continuer dëgër te ñu xam ne sa combat là c'est un combat de longue durée du du overnight ndax ñun bu ñu gëmoon li di def am amaana dañuy ne xëy na lii ñu nekk nii sax jaratu ko parce que Macky Sall day dem élection te day daan mais en connaissant la personne nous aujourd'hui on est plus engagé que jamais de continuer ce combat sans faille sans faille maanaam combat bi dañ koy continuer sans faille maanaam ñun du ñu du ñu dellu ginnaaw xam nga macha allah. dinaa waxaat sénégalais yi yéen ñi doon am sikki sàkka je pense que maintenant vous êtes rassurés que Ousmane Sonko n'a jamais négocié avec Macky Sall defe naa mbiru gañ de bari xam nga taaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soxnaam mas nañu voyager ak yonent bi am benn moment ñu am tuuti séparation. ay nit ne dafa àndoon ak yeneen góor ñu bëggoon yàq deram lan la yonent bi def il ne s'est pas prononcé dans le cas ndax moom dafa daan def toujours bu amee lu ko jaaxal rek da koy tiis suñu boroom te du ci communiquer lan la boroom bi def dafa wàccee aaya pour setal soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ousmane Sonko fan yi bi ñu commencé relâché Macky bi mu bëggee takkal deram dafa commencé bàyyi quelques détenus fii ak fële comme si c'était un deal entre lui et Ousmane Sonko mu am yenn politicien déguisé yenn euh, du ma ne activiste ndax duñu activiste mais yenn bandi déguisé yuy dem ci télé yeeg rajo yeeg internet beeg bëgg a jéebaane Ousmane Sonko est-ce que gis ngeen benn yoon Ousmane Sonko mës a génn def démenti génnul est-ce que gis ngeen benn yoon Ousmane Sonko génn yéey yàbbi ci deful mu ne pat jox leen bii yàlla setal na ko léegi yéen ñi doon layam layam xanaa doo leen ma ne Ousmane Sonko doon diil ak Macky Sall pour ñu jàpp Ngagne Demba Touré <laughs> wala yéen yéen ñi layam layam yi xanaa ma ne Ousmane Sonko moo doon diil ak Macky moo doon euh, euh, comme ni ngeen ko waxee da lan ngeen ko tuddee dialogue <laughs> wala dialogue dialogue la wala dialogue la wala dialogue parce que je sais que vous êtes assez intelligent pour nous diir que Ousmane Sonko ak Macky Sall mënuñu am communication c'est pas possible waxoon nañ leen ko ñun moom ñëwoon nañu rek waslu ci àq mais je pense que lépp lu ci lëndëmoon ci nit ci xelu nit leer na léegi kan ci yéen moo mën a ñëw taxaw tey nañu Macky Sall ak Ousmane Sonko dañu doon wax waa ji Sall Khalifa Sall mi ko doon wax sax mi ko doon utiliser pour arme de guerre pour campagne bi pour am ci ndam sax dellu na ginnaaw fi mu ne Macky la kenn mënta ànd ak moom ku ànd ak moom mu rus loolu wax nañ leen loolu nous on connaît Macky ñun ñii xeex sans faille ñun ñii xeex sans arrêt ñun ñiy continuer sans bàyyi sans relaxer ñun xam nañu kan mooy Macky Sall xëy na yan la Macky Sall ump mais ñun Macky Sall ump ñu. ñun Macky Sall mosuñoo ump Macky Sall mosul ump dara ci ñun waaye man nañ leen rassurer ne incha allahu rabbi euh, ñu ngi dem te ñu bëgg sénégalais yi ngeen ñaanal ñu ndax ñu ngi dem am ak euh, Sénat bi comme niñ leen ko woon. te incha allahu rabbi fas nañu yéene lépp luñ fa jëlee lépp luñ fa jëlee dinañ leen ci dinañ leen ci yëgle dinañ ko yëgal dinañ leen ko yëgal maanaam ma jox la nga sànni ay kàddu bismillah mooy tur pour couper voilà. waaw euh, mm-hmm. ñoo ngi leen di nuyu bu baax euh, j'ai pas grand chose à ndax euh, grand bi wax na lépp. ñoo ngi ci yoon bi di dem wuyu invitation wu sénateur yi euh, comme ni mu ko waxee encore euh, les américains euh, dañuy intéressé wu Sénégal pays africains yu bëri américains intéressé wuñu mais Sénégal surtout boo xoolee même seen ambassade bi fa nekk da gis ni cër biñ ko jox joxuñu ko yeneen ambassades yi nekk ci biir Afrique base militaire yi am nekk Sénégal am ñu nekk am base militaire américaine yu nekk Afrique bu Sénégal moo ëpp solo moo ëpp sax nombre de militaires yu fa nekk yeneen état yi donc du coup dëkk la boo Sénégal nekk na dëkk dëkk boo xamante ne intéressé na américain yi même géographiquement su ngeen xoolee la position géographique du Sénégal nekk na lu intéressé américain yi je pense que am na benn île bu nekk côté Dakar ñu koy yaakaar naa île des serpents île des serpents euh, su ma jumale il boobu la île boobu boo fa taxawee tu as accès presque au monde entier en termes de stratégie militaire donc les américains Sénégal Sénégal daf leen intéressé c'est suñu sañoon nag duñ dem leen dugal si suñu af Dakar ndax dëkk bu nekk état bu euh, réew mu ne euh, pays bu nekk yaa war a gérer sa bopp yaa war a gérer ses problèmes internes mais comme ñun kuñ ko sëkkal ab baadoola la Sénégal amul lu mu joxul Macky Sall depuis jàngam ba ni ñu ko def ba ay directeur ba ay ministre nangam ba président amul dara loo xam ne Sénégal defalu ko Macky Sall jabaram ay doomam ak i mbokkam boole ci mu luubal alal bu dul jeex boole ci rey na ay sénégalais yi dul jeex yéen a ngi gis fan yi comme ni ko grand bi waxee muy libéré ay mille huit cent détenus politiques non non cent cinq cent libéré ngu quoi mais li mu tëj environ mille huit cent la donc mu ngi ci procédure euh, libération yi mais ba léegi boo leen xoolee bu baax da gis ni Macky Sall amul benn intention wu génn bàyyi ñoog suñu réew comme demee na noonu nag ñun tamit kenn ku ci nekk lu nga mën moom ngay def ñun en tout cas zéro zéro zéro découragement tant que moom bàyyiwul ñun duñu bàyyi ndax Sénégal santul Sall santul Gassama santul Tunkara Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk donc ab doomu aadama du fi jóge du di ñëw taxaw suñu kaw bëgg ñu jaay ni que moom moo moom Sénégal loolu du fi amee li mu ko jaral téeméeri junni yoon jaral nañu ko te yàlla mu ñuy jàppale lu mu teg yàlla teggi sànni ndax yàlla ci boppam moo wax loolu ci alxuraan déjà gatsa gatsa bi prés euh, euh, euh, pro di di prôné yàlla moo ko digal ci alxuraan œil pour œil dent pour dent te. yàlla moo ne ci alxuraan que bokkaalekat yi dañuy nekk di lal ay seeni plan yàlla di lal li ay seeni plan moom mu lal ay plan boppam donc Macky Sall plan bu mu lal yàlla lalli ko lii nii ñuy dem nii fii ñu jëm nii ci lalli plan wu Macky Sall ci la ci la bokk ndax on a reçu de l'invitation on va aller là-bas incha allah rabbi duñ leen wax détails yëpp pour l'instant mais incha allah gëm nañ ne dina nekk loo xam ne di ngeen ci kontaan te dina nekk loo xam ne Macky Sall bu bu bu bu xamoon du ñu seetaan ba ñun ñuy jëm jëm foofu noonu ndax lañ ko won en septembre ah boobu da on boobu ci ay track lañ nekkoon nekk di di di wan waa Amérique mais ñi nga xam ne ñun effort bi ñu doon def ci mbedd yi léegi on nous a appelé dans les bureaux pour venir pour pour venir discuter ça ci loolu foofu noonu donc sa ça veut dire que c'est encore pire pour lui donc maa ngi jégalu. Euh, j'étais un peu euh, euh, su un peu grand bi ma yee daf ma koj ci ay nelaw xam nga mu passe ma lan donc j'espère que sama baat bi c'était pas mauvais sama bandage bi ngeen di gis nii dama amee panari donc démb j'ai la nuit j'ai passé la nuit à à à à l'urgence donc moo tax j'ai pas dormi de la nuit mais comme Sénégal moom Sénégal bu woote quel que soit bu dee ay nit lañ jàpp Sénégal tëj leen xañ leen seen liberté pendant des des mois et des mois Proche bi nga xam ne moom mooy suñu leader moom ñu tëj ko pendant des mois et des mois donc ñun incha allah du ay du ay panar moo ñuy tere dem ci ci ci ci ci ci ci combat donc euh, ñu ngi ci yoon bi incha allah xam naa ne grand bi mu ngi daw ay vitesse yu amul fenn macha allah donc euh, te mën na waaw daawalam neex na trop sax macha allah. lay wàccee de de dama koy wàccee de. dama koy wàccee de. gars yi dama koy wàccee de. wax leen ci dama koy wàccee de. voilà ay tappale la def toog xaar ñu war ñu am rendez-vous mu toog ba 5 heures ba tey di ma waa grand xam nga nelaw ma guddi gi yëpp mais dinaa ñëw quoi dinaa góorgóorlu comme ça damay toog ban ba nelaw tappale rek lii mu leen di wax nii yëpp bañ a dawal rek la <laughs> pour bëgg ku ko dawalal <laughs> yóbbu ko ba Washington mu toog fii di tappale. de moom nelawul guddi gi yëpp quoi mais du dugguma ci de <laughs> mais gars yi voilà c'est comme je vous disais comme ni ma leen doon waxee tout à l'heure rek euh, da ngeen di xam ne euh, macha allah yàlla moom du tëj buntu tëj parenthèse euh, Macky Sall li ko gën a déranger ci àdduna bi mooy mbir yi waa niveau au niveau international liñ koy xamal bëggul ku ko xamal waaye fi mu ne makki Sall man mën naa leen ne euh, ku solul yére sax Macky Sall suturam moo gën a xaweeku kooku voilà donc euh, dama bëgg rek seen xol sedd incha allahu rabbi seen frères yi dinañ leen dem représenté waat dignement comme niñ ko defee woon xam nga septembre nag ak loo leen mën a wax seen xol seddoon na septembre septembre dafa def effet xam nga. li gën a traumatisé Macky Sall ci àdduna bi mooy l'effet de septembre léegi nag l'effet de septembre tey yàlla dafa def dañ ko imprimer def ko ci ay dossier di dem ak moom teg ko ci loxo Sénat bi ci boppam donc Sénat bi dinañu xam euh, paquetage bi rëbës dinañu déglu témoignage yu jeunes yi génn rëbës dinañu xam li xew Sénégal dinañu xam li ñuy def suñu ay jigéen dinañu xam borom mayo bi nga xam ne ay Aïssata Tall Sall laaj nañ ko démb ne ko borom mayo bi ñu dóoroon mu ne yëgu ko Sénat bi dina ko yëg donc euh, vous serez content je vous promets que tey vous serez satisfait on va dans les grands bureaux des États-Unis pour montrer pour décortiquer ce qu'on avait fait au mois de septembre loolu la ñu bëgg ngeen xam seen xol dina sedd guy tey lépp lu leen naqari woon dinañ leen ko fajal tey lépp loo leen jooy tey dinañu fomp seen rongoñ voilà yéen ne vous en faites pas comme niñ leen ko waxee toujours je vous promets que tey seen xol dina set parce que ñoom en fait seen yéene moo doon ñu continuer noot sénégalais yi continuer def ñaawteef continuer fen àdduna bi mais nag xam nga yàlla moom jaam ak pexeem yàlla ak dogalam lépp loo xam ne ñoom fexe woon nañ ko seen pexe yàqu na xam naa nag gars yu bari dañu ne mais grand bi li mu sol nii nag lii dama ko sol pour dawal bi yomb xam nga booy voyager voyage bu xaw a gudd moo tax ma xaw a sol yëre yu kii voilà voilà pour ma mën a dawal euh, confortablement kii daf ma yàq dinaa ko wàccee léegi voilà pour ma mën a daw euh, confortablement comprendre moo tax ma sol yëre bii moo tax ma sol yi mais du yii laay sol de deux pièces laa leen defal deux pièces Sénégal du normal ñu ñawal ñu suñu tailleur Sénégal yi seen man-man voilà ñu ne ñu sol seen deux pièces li li ngeen costume africain incha allahu rabbi dinañu dem sol suñu costume africain dugg ci biir wax ak américain yi pour ñu dégguñ voilà. donc euh, am na ku ne ah. waaw am na ku ne euh, euh, écoutez Cheikh Omar Diagne on on l'a très bien écouté ñun dara duñu raw ma ne sëñ bi. xam leen ne ñun dara du ñu raw on na très bien écouté Cheikh Omar Diagne très bien et il a très bien parlé wax nañu pour vous dire qu'on l'a écouté wax na ba ci vingt six hectares vingt six mille deux mille six cent vingt six mille hectares yu Franck Timis yi pour ngeen xam ne déglu nañ ko pour rek ñu rassurer leen nag on l'a bien écouté donc on na bien très bien écouté euh, Cheikh Omar Diagne on l'a très bien écouté voilà déglu nañ ko bu baax voilà sa waa ji nee na de du nee na dafa sonn léegi mi ngi laaj pour ñu jox ko kàddu ma jox ko kàddu wala non non non va dormir gars yi nee nañu non non non ils n'ont pas besoin d'entendre ta voix ah ah gars yi est-ce que waa ji bëgg ngeen dara ci moom Sonko mooy jobaay loolu du débat ah, gars yi <laughs> Macky Sall dafa ndax kuy dem jàpp koo xam ne wax dëgg yàlla booy jàpp sax yow boo bëggee wone sa man-man da ngay jàpp ñi nga xam ne yaakaar nga ne man nga leen jàpp ñun yow boo bëggee wane sa man-man viens nous chercher nous jàpp ñu wala kenn gëmul Macky Sall je vais vous dire Macky Sall il n'est pas crédible il n'a plus de crédibilité à travers le monde xaar leen ma jox leen euh, suñu frère bi moom it mu sànni ay kàddu waaw euh, merci beaucoup euh, pour pour m'avoir autorisé les internautes pour ma ñëwaat. en fait je voulais juste euh, accentuer ci li grand bi doon wax sànq euh, en en septembre ñun on on avait toutes les informations nécessaires moo xam en en photo la wala moo xam en vidéo la ñaawteef yi Macky Sall jotoon a def foofu au Sénégal pendant les manifestations dañ ko collecté woon pour wili pande ko pour wan américain ni que kii nii di fi ñëw di jaay ni que moom c'est un démocrate en réalité c'est un faux démocrate c'est tyran c'est dictateur et alhamdulilah loolu ça a bien marché résultat bi gis ngeen ko mais cette fois si loolu noonu ñu doon def ñoom ñoo ñu woo pour ñun ñu. andi leen ko sax xam nga loolu dafa manqué woon. loolu sax. mais ñoom fi mu nii ñoom ñoo ñu woo. pour ñun ñu ñëw faram fàcceel leen loolu. te biñ ñuy woo yàlla def na ni ci diggante bi manifestation amaat na fi ba Macky sax reyaat fi ay nit yooyu yëpp am nañ ko ci diggante bi. ñi mi nga xam ne ne ñoom la jiiñoon ne ay terroriste lañ ba ñu tëj leen xanaa kay ay terroriste boo leen jàppee doo leen bàyyi noonu encore bàyyi leen ñu dellu ci biir dëkk bi di leen ñu ñu dox fu nekk ci biir dëkk bi wala ay terroriste doo nekk di leen libéré seen i mbokk bundu rëbës fees dal di di accueillir ay terroriste c'est archi faux ba pare terroriste yooyu ñu def leen ay interview ñuy wax ni que dañ leen torturé maltraité leen ba pare ay policiers di sàcc seen i xaalis donc on a encore plus de preuves contre Macky Sall et son régime plus de preuves contre ces voleurs et ces bandits preuve yoo xam ne na ñun bii pas du ñun ñoo daj coono pour dem di leen ko jéem a wan ñoom ñooñu woo ne la ñu andi luñu andi luñu ko andi leen ñu ko donc foofu lañ jëm loolu laa bëggoon insister pour wax ni que ah cette fois ci de wax dëgg yàlla c'est les américain eux-mêmes qui veulent voir exactement ce que Macky Sall est en train de faire au Sénégal donc euh, ñu ngi ci yoon bi bu soobee yàlla ñun on a toutes les preuves nécessaires te on a l'énergie ona la passion ona a l'amour du Sénégal bu ñu mën a permettre ñu toog et ona a on a on a l' bon du ma dugg sax si yeneen mais en tout cas on a les bagages nécessaires pour pouvoir montrer aux Américains en détail ce que Macky Sall est en train de faire ak li muy gëmloo l'extérieur te incha allahu Macky Sall moom mu neex ko mu naqari ko ñu bàyyil Sénégal moom. avec ces petits pions qu'il qu'il qu'il qu'il veut muy mu nekk di manipuler pour mettre leen au Sénégal àdduna bi gis ngeen on dañ dañ toll ci tournant boo xam ne àdduna bi moo soxla changer le monde est en de changer ku ko comprendre nag da ngay ànd ak changement boobu ku ko comprendre wul da ngay teg sa tànk comme ni ko sama xarit euh, Cheikh Mbacke Sakho di ko waxee da teg sa tànk mu ñëw fël la damm sa tànk changer dem yoonam jamono dëgg wax dëgg ca lañ toll. ku bëgg a dund ci sa noflaay dangay nekk ci dëgg ku ci nekkul àdduna bi mooy jaar sa kaw dàmm sa tànk dox doxam les choses lépp li nga xam ne dañ ñu ko doon naxee fu mu toll nii kenn na mënatu ko nax ñu ñaa ngi yeewu xoolal li li li Ousmane Sonko yee la la jeunesse sénégalaise en un temps record alors que y avait des politiciens pendant des décennies qui ne par pas le faire adduna bi xool leen Mali xool leen Burkina Faso xool leen Niger les choses son en train de changer Macky Sall nag moom mooy ñëw. fépp lépp di nekk di changé yàlla nekk di changé euh, adunaam Macky Sall ne moom day day taxaw loolu du fi amee xam nga ne yàlla Macky Sall mënul xeex yàlla c'est impossible donc du coup incha allahu rabbi c'est c'est pas neexul c'est euh, bëri na bëri na coono bi bëri na métit métit euh, bi bëri na mais Sénégal jar na ko te incha allahu rabbi on va vaincre Macky Sall maa leen di remercier grand sa gars yaa ah donc gars yi comme ni ñu leen ko waxee encore une fois euh, jàpp Ngagne Demba Touré bi diversion la pendant ce temps Macky Sall a assassiné encore un autre jeune euh, UGB boo xam ne tey ci suba ñun ñëpp ñoo ko gisandoo euh, kenn la ñu gaañoon ci manifestant yi UGB waaye yàlla dafa def euh, xale bi ñàkk bakkanam donc euh, ñuy massawu di jaale encore une fois waa Sénégal mu doon lu metti ci xol waaye nag euh, yàlla jaam ak yéeneem yàlla ak dogalam donc ma remercier waat leen rek pour ne leen euh, vraiment ñu ngi vraiment ñaawlu trop li nga xam ne moom moo xew waaye aussi di fa jaar di rafetlu li nga xam ne moom mooy toujours taxawaayu euh, sénégalais yi parce que Sénégal moom comme niñ koy waxee toujours rek yàlla daf ñu may loo xam ne mën naa ne amaana réew yu bari tey bëgg nañ ko ci àdduna bi waaye amuñu ko euh, baal leen ma rek ma indil leen le jeune son nom turu voilà mi ngi nii euh, ils ont tué un autre étudiant aujourd'hui ndeysaan euh, notre frère Clédor Senghor voilà Clédor Senghor euh, université Gaston Berger bu Saint-Louis la doon jàngee dañu bokkoon ci xale yi doon manifeste fan yi passé pour Macky Sall tenir datu élection donc Macky Sall loxoom takkaat na deret reyaat na beneen doomu sénégalais léegi nag moom pour étouffer information boobu ndeysaan mu dem cueillir koo xam ne moom moo indi boppam xam nga wan Macky Sall dafa xaw a nekk film cinéma voilà donc euh, Ngagne Demba Touré il était en sécurité au Mali n'est-ce pas ngeen yaakaar ne kan moo ko indi ngeen yaakaar ne nit moo ko indi déedéet moom moo dagg paasam ñëw kenn indiw ngeen yaakaar ne dafa am accord ak nit ne ko ñëwal dina la jàpp wala duñ la jàpp jamais il est venu tout seul kenn ci yéen ci Sénégal mënu laa wax nous on connaît en connaissance de cause ñun xam nañu lu tax mu ñëw parce que Ngagne Demba Touré c'est quelqu'un qui est responsable moom lenn la wax du jox boppam Sénégal mooy ay nervi du bàyyi ay nit dem jëndi ay armes dugal ko ci ab palais jël ay nervi jox leen ko pour ñu faagaagal nit ñi comme ni ñu def Pape Abdoulaye Touré donc Ngagne Demba Touré loolu la bañ et il est allé en exil waaye bi heure ñëwam jotee ba mu ba mu ko sentiree moom ci boppam il est venu et en connaissant les conséquences parce que bu leen fàtte ne Ngagne Demba Touré moom moo leen gën a xam kuy Macky Sall moom nee na ngoram mënu ko woon may mu toog continuer toog bitim réew bàyyi Ousmane Sonko ak ñoom Bassirou jomaay fay ak yeneen sénégalais yi ci des ba léegi ci biir prison donc il va venir et il va prendre ses responsabilités donc comme ni ngeen ko gisee nag voilà lépp loo xam ne fekk na ko ci. moom il avait pris ses responsabilités lépp loo xam ne waaye am na am na fii ci ginnaaw mais il faut nga tëj lii. nga yërndu voilà da ngay tëj il faut nga wàcce affaire yi voilà nga yërndu foofu and then you're gonna see it on the side you open it a fly donc Ngagne Demba Touré c'est quelqu'un qui a décidé de prendre ses responsabilités voilà il a pris destin en main lépp lu ko ci fekk il assume et on assume ensemble nous tous avec lui te ñuy wax rek sénégalais yi comme ni ngeen déggee xale yi di ko wax dem kaso ci taawu Macky Sall umra la jaamu yàlla la dem kaso ci taawu Macky Sall umra la maanaam jaamu yàlla la loolu ngeen di gis noonu muy def ak Ngagne Demba Touré yëpp sama genre gi lay intimider ak ñeneen ñi nga xam ne promettre nañ ko ne ñu ngi ci yoon di ñëw senegal waaye li ma leen waxoon la rek ñu ngi dem ci meeting bi incha allahu rabbi ne fermez pas les portes parce que tout est possible nag damay bañ nag Sénégal ma jékki-jékki dagg billet rek ñu bari ci yéen ngeen xam mais ne vous en faites pas tout s'est réglé incha allahu rabbi lépp dina baax lépp dina jaar yoon parce que Macky Sall moomul réew mi il faut yéen ngeen xam loolu il faut ñun ñu xamal Macky Sall ne moomul réew mi suñu détail waxtaan yi on va pas y venir duñu ñëw ci suñu ay détails yu waxtaan. ndax bu leen fàtte aussi ne que gouvernement la ñuy dem waxal te c'est le gouvernement le plus puissant au monde aujourd'hui world number one power donc du suñu waxtaan yi ñu fay waxtaanee yëpp ngeen di gis vous allez avoir des extraits voilà di ngeen am ay extraits ci suñu communication mais am na lu bari loo xam ne incha allahu rabbi di ngeen ko ci xam te dinañ ko waxtaan ak yéen aussi ndax ñun dañuy bëgg rek lépp lu ñuy def voilà lépp lu ñuy def rek incha allahu rabbi ñu teg ko ci yoon donc euh, ah non non mu ne non sérieux arrêtez encore. arrêtez Demba non du yow du yow mu ne Ngagne Demba Touré. ndeysaan euh, GPS où sont les dialogues <laughs> ah, non non non euh, ils savent Francis ils savent que y' avait pas de dialogue c' que Khalifa Sall moom ci banditisme politique lañ ko xamee mook Bart voilà c' est le deal c' toujours dans le deal de Macky e comme on vous l'a on, on vous l'avait dit hier Macky n'a pas d'intention à organiser des élections au Sénégal Macky amul boobu intention Macky, il voulait assassiner Amadouba, Alassane Ouattara. Et quand on a alerté, Amadouba a pris ses responsabilités. Comme il n'a pas voulu l'assassiner, maintenant il veut l'éliminer. nee nañu leen Macky mi ngi ci plan wu machiavélique boo xam ne il a décidé qu'il va essayer d'arrêter des juges ci ay fen en utilisant Bassirou Gueye encore comme vous le connaissez Igor et ils vont créer des faux audios des faux vidéos ils vont marcher dans tout ça ñoom ci loolu la ñuy dox ils vont continuer leur magouille mais bu leen fàtte ne y une communication de Cheikh Anta Diop am na sama xarit bu ma ko fàttali ci suba jarul ma ci yeeg xam ngeen waa ji bi mu ñëwee lim ñu wax li Cheikh Anta Diop waxoon ci ci mag ci ci njiit buy ñëw ci Sénégal te lu déglu population et aussi ndeysaan le leader charismatique Ousmane Sonko vous avez dit dans une de ses communications ne waa ji ndeysaan daf ko tiital ne il va finir comme Samuel do parce que c'est quelqu'un qui ne va pas respecter sa population et cette population cette population cette population sénégalaise fera face Serigne Serigne Fallou mu ne da ngay dul xalifa Sall du sa nawle wax nga dëgg de Khalifa Sall kay yàlla bu mu doon sama nawle sëñ bi tam. sëñ man man naa toog fii Khalifa Sall di doon sama nawle man Khalifa Sall du sama nawle yàlla bu ma nawloo Khalifa Sall allahu akbar. man damay xeexal sama réew lui c'est un vendu. comment se fait nga bëgg man ma nekk nawle kooku yàlla ñu yàlla musal yow man maa ngi xeexal Sénégal man Sénégal laa gëm man Sénégal laa jox sama bopp addiya Khalifa lui il veut sacrifier les Sénégalais nee na naa falu naa naa bokk rek. naa bokk yow dégg nga naa bokk rek moo tax it bokk na moom dafa ne naa bokk rek comprendre voilà moom dafa naa bokk rek Khalifa la wax ñun waxuñu loolu de ñun dañu ne nañu bu dee dañu nañu bokk ci dëgg. te ñun ñu Macky Sall pour Ousmane ko bokk fi mu ne nii na bàyyi noonu Sonko rek nañu indil jomaay ñun Macky Sall bu mu changé dara xoolal xoolal débat bi ni mu changé léegi waa PDS nee nañu ñun la ñuy xeexal dangay dégg ñu bari léegi ñu naan non non non dañu bëgg élection yi jaar yoon pour soo ko bokk dañuy fen dañuy fen de gaay ku ragal ku ragal jomaay kooku dina ñeme Sonko dañuy fen ci ay diil la ñu nekk bu leen leen déglu bu leen déglu de déedéet ñun bëgguñu sonko bokk sonko bàyyi leen ko foofu na jomaay ñëw rek ñun bëgguñu sonko bokk ñun bëgguñu sonko bokk déedéet déedéet ñun bëgguñu sonko bokk bàyyi leen sonko foofu ñun bëgguñu Sonko bokk we do not want Sonko to be part of these elections déedéet bëgguñu loolu mu ne euh, Lamine Sane mu ne Khalifa ne waaw <laughs> Khalifa de du référence macha allah <laughs> loolu boo ko laajoon bébé bébé apataluga yi ñu wax la ko Khalifa kay Khalifa Sall rek xam nga ndeysaan ñu bari ci yéen. il faut connaître le Sénégal pour tout connaître am naa benn xarit